muy ay seede yu ñu mën a téye ndax itam nit bu génnee àdduna ay seede dong moo fi des euh, loola waral tey ñu euh, tàmbalee euh, waxtaan wi ak sëñ bi Babacar nowel Ndoye nekkoon ku xam lool El Hadji Daouda Faye ñu koy ñaanal yàlla yërëm ko xare ko àjjana te teg loxo ci njaboot gi mu fi bàyyi sëñ bi Ndoye ñu ngi lay nuyu am te lool dalal la ci waxtaan wi tàmbalee ak di la jaale sa sa xarit sa àndandoo El Hadji Daouda Faye Baba bismillah aleykum salaam soxna Fatou ñu delloo ziar delloo nuyoo ñu ne inna lillahi wa eh, ko waxee rek ñu jéem rek nit ki tamit eh, mënuñu wax ci moom eh, lépp mhm. ndaxte nit loo nit leen rek loo mhm. kese la mhm. nag lépp loo xam ne li ci ay bët li ñuy wax ci li nit ku baax yoo xam ne li mën nañ ko seede ci moom lu njëkk xanaa yow nga présenté wu ci ci auditeur yi lay déglu ñu gën a xam yow yaay kan. waaw man Babacar Mbaye Ndoye parce que bu xabaar laa. nekkoon hmm. euh, Soleil ak Walfadjri. Hmm. Euh, yaroo Kaolack màggee Kaolack dëkkandoo ak moom raay bi rek moo doxal suñu diggante hmm. moom mu dëkk Kasnack moom mu dëkk Léona waaye ñu bokk génération. xam nañu nag vraiment daan fréquenté wu daan football toog ci ay affaire ci quartier yi mhm. moom mu nekkoon ci équipe dañ daan wax espérance bu Kaolack donc mhm. ma nekkoon mu mu nekkoon benn raay bi rek moo ci diggante ak ñoom donc euh, ñu bokk dëkk bi ñu màggandoo mag nag mhm. nekk suñu xarit tamit nit koo xam ne kii ku yàlla baaxal la woon jàpp alors tey bu ñu la ne woon kuy daaw dafay vava yow mi bokk ak moom génération donte moo moo la mag ni nga ko waxee mais ngeen fowandoo gimennoo màggandoo ci xaleem ba ci ni muy nekk mag di ràññeeku ci réew mi loo ñu mën a wax ci loolu. waaw li ñuy wax nit ku entrepreneur moom la woon. daal la daal la ñuy wax nag may gën a préciser parce que. daf daan turandoom ko daan màggal. Hmm. xam nga nit ñi bëri dañu yaakaar ne Daouda la tudd mais moom daf daan insister ne bu ñuy wax ci moom la ñuy wax Alaaji Daouda Faye. Hmm, ndax ki ñu ko tuddee. tuddee Alaaji Daouda Faye. Hmm. ki ko tuddee daf doon koo xam ne yàlla baaxal la eh, mérite de l'islam nit ku baax la woon ku yaatu la woon dëkkoon Tëngéej. daan ko wooyee Alaaji mu tuddoon Alaaji Daouda Ndiaye. kooku nag daf ko daan màggal tuuta. rek nit ñi attention woon ci nit alors Daouda euh, formation euh, instituteur la def mm-hmm. génnee jàng meeg yëpp école bi nekkoon tëngee kuñ ci daan formé instituteur yi ci la bokkoon mm-hmm. alors ñu affecté ko bu njëkkee génn génne ñu affecté ko affectation benn village bu ñuy gàcc mm-hmm. gàcc nag nekk ci kawoon Kaolack waaw nga ci am ngoon. Mm-hmm. parce que moo topp ci kaw. Mm-hmm. wala njëkk a jàngale. ba mu fa jógee nag ñu andi ko Ndakaaru ñaari fan yi daal benn la ci nekkoon fan op wala fan résidence. Mm-hmm. fa la ci nekkoon alors bu ñu euh, mu nekkoon moom tamit. la commencé euh, yëngatu ci affaire euh, entrepreneuriat ci lii bu gën a yaatu daal. Mhm. dana commencé ay mbiram. waaw pardon. Mhm. daal ay ut foofu ay jën ak kii yooyu di ko andi ndakaaru di ko jaay di def yooyu. Mhm. di jàngale daal ko jaay commencé daal ci gàttal daal ñu ngi commencé. waaw te booba mi ngi jàngale. boobu mu ngi jàngale. mais am beneen activité. voilà bon loolu ci loolu nga xam ne lii nag bokk na ci bu ñu jotee vacances rek mu am def ko dafa benn pàcc. Mm. ah continuer nag. Mm. waaw ba yàlla def daal mu nekk ci ci yooyu daal di def ci dem ak wàcc ak daanoo ko yéeg ak wàcc. Mm-hmm. defaru nag di defar. Mm-hmm. jàppale ko ci. mu am empire bu ñu mën a empire rek ñu xawal ko loo xam ne lii vraiment euh, ñëpp teg ci seen bët. Mm-hmm. muy liggéey bu rafet. waa teg ci seen i daal en quelque sorte voilà sportif bu mag la woon itam ñu ne. waaw donc euh, sportif la woon. parce que mm. kon bi ko waxee koñ bi mu dëkkoon. Mm-hmm. dañ ko daan ooyee Espérance. Mm. ñoom ñu daan footballandoo foofu moog euh, ay euh, naataangoom ak maasam. Mm-hmm. ñu ràññee ci ñu bëri ñoo xam ne ni moom du leen fàtte. li mm. ñuy wax Mandiaye Ndiaye Ngolo doon ci yàlla moom tamit motogul sax weer ci la génn àdduna. Mm-hmm. moom nekkoon international bu Sénégal mhm. daan football équipe nationale daan football mosé mhm. def benn jaar gaar bu gàtt jaar Chia doo ko delluwaat Kaolack mhm. euh, ñu wax Baye Farak Sey moom tamit dañ ko daan wooye Piantoni mais que ñoom seen ak seen seen équipe boobu pratiquement la jëloon référence Brésil moom ñu ko daan wooye Baba y Piantoni qui est ñoom papa Komé ngi fi woon ñoom papa Niang ngi fi woon ñooñu yëpp a football. Hmm. waaw nag a football ci koñ yi seen seen équipe boobu ñu daan woowee Espérance alors mënoon na football rek lu taxoon turu Vava bi ñëw looloo ko andi. Hmm. alors keneen kii ñeneen Piantoni ñoom in euh, Ngolo ñoom Marci Diané ñooñu yëpp looloo taxoon ñu am ay yenn surnoy. parce que le grand match parce français. Hmm. moo taxoon ñu jox leen yooyu tur donc pour wan la rek ne d'abord suqali bi bokk ci ci ci sport màgg ci biir sport bi doxal ko ci aar ayoon ba ni xam leen ñu ràññee leen te ñu mënoon na football lool ah mënoon na football mënoon na football c'est un bon joueur très bon joueur waaw joueur football vraiment mënoon na football daa football ak ay équipe xam ne yi ay ay d'or ay ay ay ay ay ay ay Real waaye euh, mu ko équipe yoo xam équipe yu baax la ñu woon Kaolack yoo xam ne ñu vraiment génne nañu ay joueurs yoo xam ne dugg nañ ci équipe yu mag yi. Hmm. vraiment mënoon na football daaw euh, Daouda Alaaji Daouda Faye mënoon na football. Hmm. loolu habitude Vava bi. ma bàyyi fa bàyyi farase yi ñu leen ooyee ñoom euh, Piantoni. Mars hmm. Diané seen kii bi daal mu ko ñoom daal ko baax waaw. alors mu jóge ci footballeur. Euh, nekk dirigeant de football euh, bokk ci ñi sos ay ay ay club fii ci Sénégal nekk itam ku gérer lool football Sénégal ndax comité de de gestion bi nga xam ne moo ñu yóbbu ci fédération sénégalaise bu football moom moo ko yoroon sax ba keroog muy nekk euh, fédération alors naka la defee transition bi entre footballeur ba dem nekk dirigeant de football. bu dëgëroon ñu jël si ko. Mm. waaw parce que daf ci boole xare euh, yi. Mm-hmm. xam bu sell. Mm-hmm. ak alalam. ak gis-gis bu leer. ak gis-gis bu leer doo loo xam ne lii kayit euh, nekkoon na koo xam ne kii dafa ñeme woon a wax dëgg kayit ñeme défendre ay argument mm-hmm. lu ñu taxawal loo xam ne li mën na ci wax loo xam ne lii am na ci xam-xam dana ci wax défendre nag argument yi yi mu ci avancé alors euh, transition boobu dafa yomboon trop rek dugg fële mhm. sportif la woon d' abord mais les parce que joué bu nekk tous les jours dañuy football après midi ba ngoon ah dañuy loolu koñ bi mu juddoo la wala ci gi mu bokk wala euh, dafa judd rek am am am bëgg-bëgg ci ci sport lan moo ko inspiré ba mu nekk un sportif dans l'âme comme ni ñu ko doon présenté waaw mais en général tu dans les euh, bu njëkk mm. euh, boo nekkee école primaire dañu daan tàggat sport mm-hmm. da nga def sport bu la loolu discipline sportive bu la neex da koy da nga koy def mm-hmm. yooyu beaucoup de disciplines sportives yoo xam dañ ci daan tàggat ni xale yi élèves yi mm-hmm. yooyu nag ci école primaire la commencé yooyu dugg dugg ci saa bi engrais loolu ak moromam bokkaloon yoo xam ne ñu ñëw tamit dañ ko dal coupe gouverneur inter inter inter équipe interclasse des choses comme ça. Mhm. yëpp bokk ci façonné ko forgé ko. Mhm. mu am benn am na mu dugg mu nekk ci boppam. Mhm. ñoom ñi mu nekk woon tamit nekk de grand joueur. Yérim Codé Yérim Codé Diop moom mu nga Ndar moom euh, euh, ku yàlla baaxal moom tamit ku mënoon a football la woon. ah ñoom itamit ak Baye Fall comme ni ma la ko waxee ñoom Mars Diané ñëpp seen groupe boobu. te nit ku doon football. mënoon ñu football ba nga xam ne équipe bi nekkoon école law la boobu mm. euh, daan na dem ay coupe yu bëree bëri ak final coupe yu bëree bëri bëri coupe mm. régionale mm. Euh, waaw te di ko gagné parce que des joueurs yoo xam ne vraiment ñu ñu fës lañu woon ñu ñu xarañ tamit euh, bokk na ci li nga xam ne lii ci ci lu bëree bëree bëree bëri waaw waat ci transition bi waaw footballeur ba dirigeant de foot waaw alors dirigeant de foot bi moom dafa yomb rek mu def ko mu mu transi mu mu mu mu def benn mu kii hmm. benn benn buntu lañ ubbi rek mu jàll fale hmm. ko ñu ko parce que bu ñu ko ubbi woon sax ñu bu ko ubbi woon moom nit ñi dañ voilà nit ñi hmm. parce que daf ci wone ay euh, ay ay ay njëriñ euh, xam ne ñu nañ ko waaw parce que jàppale na équipe bu kaw la bokk ci nga xam ne ñu yor Guédiawaye football club bokk na ci équipe bu jaraaf bi dimbali na ay équipe yoo xam ne yi dans la discrétion te nit ñi xamuñu hmm. waaye bokk na ci ñi nga xam ne ñi am na ñu jàppale am na lu hmm. ci lu mu ci def yoo xam ne lii pour wane nga rek euh, sénégalais la hmm. tey war naa ko war naa fonctionner comme ça waaw du woon rek koo xam ne day ñëw rek ne la non non man kii laa far déedéet da kii dara mu bokk ci ne ci laa bokk parce que Sénégal la xalaat boobu nag boo ko amee euh, yàlla doon la du yenn groupe yoo xam ne da nga mën a jëflanteeg ñëpp mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. waaw daan ubbeeku ak ñëpp ci loo ko oo mu toog déglu la amoon na écoute nag waaw toog déglu la waxtaan ak yow wax ko li nga wax mu wax la ay xalaatam bare dimbal la boo xam ne daf koy def su mu toog mu def loolu loo xam ne dañuy xaar bu war koo def après bu def ko yooyu yëpp bokkoon na ci ay qualité am yoo xam ne yi vraiment mënoon ko ko ko mhm. waaw alors bi mu yoree commité de gestion bi ñu yóbbu ci fédération sénégalaise bu football euh, ban liggéey bu bu bu euh, xëy na jaratee la fa def te nga mën ñu koo wax tey waaw tu sais euh, kii de forme de de normalisation la woon. waaw de ah. normalisation la woon en quelque bëri na ay pàcc yoo xam ne yi euh, dañ koy waroon a assainir. Hmm. jooyantiwaat ko bokk na ci taxi yi jooyantiwaat yu bëri yoo xam ne yi dugal na ci loxoom ak mbokk ña mu àndaloon. Hmm. ñu bokk ko dox ko euh, leeral ko. Euh, mettre ko à jour permettre à ce que ñu dellu si waat ci fédération. parce que hmm. yooyu yëpp doon liggéey boobu yëpp bu amuloon. kenn du mën a dem fédération ah, parce que amoon nañ fédération avant. ah mu amoon jafe-jafe. mu amoon ay jafe-jafe. Ah, ah. ko fi. yooyu yëpp bokk na ci li nga tax mu ngi tax moo xam ne moom lañ ko dénkoon pour mu. Hmm. mottali ko. alors mu dox ci wax ci def ci mook ay ñi mu àndaloon. ba hmm. leer ba ñu dellu si ci fédération. fédération taxaw ñu dénkaat ko ko. ñu dénkaat ko ko. yooyu hmm. yëpp moo lay woon rek ne euh, nit la woon koo xam ne kii vraiment ku xarañ la woon. te it euh, amoon na dal. Hmm. waaw suñu bëri dañu yaakaar mais dafa amoon amoon na dal. dal boo xam ne ah, dañuy wax ne dafa tàng. déedéet dal la rek waaw dal la parce que dañuy def nit ñi dëgg. waaw bu lay wax it da lay wax li nga xam ne moom la. en général sax ku ñuy wax dafa tàng mooy ku dëgg moom lu mu xalaat da koy wax. lu mu xalaat da la koy wax. waaw te dañu may defendre gis-gisam aussi. jeex na loolu moo nekkoon ci moom. waaw ak ni mu ko mën a waxee rek mais ak courtoisie lay doon. Hmm. dina ko def ak courtoisie mm. wax la li mu lay wax da mm-hmm. pare ñu défendre argument yi waaye ay dëgg moom daawu ko laax déedéet xalaat xel xalaatu ko sax mm. amul kenn taxaw ci kanam moom mu lay nëbb loolu amul amul woon mm. déedéet loolu xel xalaatu ko woon dana mm-hmm. ah, waxtaan ñoom si lépp daan nañ toog euh, bu ñu toogee grand place pour mën a toog nag mm-hmm. alors waxtaan bu ñu mën a dugal rek dana ci dugal ay grain de parce que euh, fekk na mu am ci ay euh, ay xalaat ci ay ay njàngat loo xam ne lii gis nga ko wala dugg na ci wala am na ci ay ay ay certitude yoo xam ne daal dina ko permettre ngeen waxtaan bokk ci waxtaan bi mhm. waaw loolu yëpp bokk na ci nga xam ne ni euh, emmagasiné woon na ko ba nga xam ne euh, Alaaji Daouda Faye boo toogee ak moom mhm. euh, a waxtaan ak moom daan mhm. nga mën a waxtaan woon ci jamono ci domaine bu nekk yoo xam ne yi vraiment dina la ci ak xalaatam dana la ci mën a jàppale dana la ci mën a wax loo xam ne lii boo ko jaaree boo boo ko defee da nga ci mën a am Euh, résultat. Hmm. alors ku wax El Hadji Daouda Faye Vava aussi sa xel dafay dem ci organisation Coupe d'Afrique des Nations par le Sénégal en 92 mu def si liggéey bu mucc ayib organisation boo xam ni euh, euh, kenn amul lum ciy wax donte sa jëluñu coupe ba mais quand defoon na fa liggéey bu bu am solo. waaw loolu tamit lu jara lu jara taxaw la. Sénégal tamit waaw dinañ ko mën a duñ ko mën a dana am ci wala du am lële organisation bi dana aw dana am kii wala mënu ko euh, bañ ko ko confier. Hmm, kon tiitaange daf ci amoon. Ah, ci organisation bi nit ñi dañ ci amoon ñaar. Ah, ah, il faut être il faut il faut il faut être euh, sincère pour xam pour wax loolu. Hmm, hmm. parce que ñu bëri am na yoo xam ne tamit euh, xalaatuñu woon dana mën a demee noonu mais nag ñi nga xam ne jege woon nañ ko te xam ko xam kuy nit ki. xamoon nañ ne dana ci def loo xam ne lii euh, bu si paree danañ ne alhamdulilah. Hmm. te lam ci defoon ni tamit lam ci def ba mu paree organisation le plan organisationnel. Hmm. Euh, euh, mu ko ni mu waree doxal ko na mu waree li loo xam ne lii fifteen lay jar mu jaaree ko jë mu jëndee ko fifteen. Hmm. mooy bu ñu ko joxee ñaar ñaar ñoom ñu ne kii jar mu jënd ko fifteen ba ñetti ñetti fifteen yi. ñeenti loolu yëpp daf ko ba mu leer. ba mu paree la nga xam ne lii moo ci moo ci génnee muy li ñuy wax euh, euh, recette yi dafa excédentaire ba nga xam ne dafa jël alal ji ko nguur maanaam lañ ko joxoon dépense dafa dugg ba pare togg añ bu neex dese dépense delloo ko ko ko jox ngoof loolu loolu la bariwul ci réew mi tey waaw loolu nag euh, def ko yàgg def nag ku hmm. ko def nag mu koy def nag kon ku jubla woon waaw ma ne kon ku jub la woon. waaw nga mu wér bu ni ko fi yàlla jëlee. Hmm. ko topp ba mu fi génn keroog. Hmm. keroog am solo aju alarba am. loolu nit xam ne kii loolu moom mën ko ko waaw mën nañ ko ko séddale yooyu hmm. nag euh, ñu ko biir ay euh, vraiment am nañ ci ndam boo xam ne bii ñun ñu ko jege ñi nga xam ne ñoo liggéeyoon ak moom. dafa am liggéeyal. yoo xam ne ñu jublam yoo xam ne ñu vraiment. Euh, yàlla baaxal nañu. di hmm. ñoom euh, Massi Diané ma di ñoom euh, Goyane Diané ma di ñoom Alioune Tall Lioune Tall journaliste Amadou Diaw ñoo nga xam ne ñu ñëpp ko waroon Pape Dia. Hmm. bëri na daal ñoo xam ne ñu daal suñu groupe bi ñu ci bëri xam ne nii. Hmm. am nañu ñaari fan yi jàpp nañ ci ba yàggal dëkk nañ li ñu bëgg mu la ñoom ñoo xam ne am na loolu ay xaritam la ñu yoo xam ne ñi vraiment ñu set loxo la ñu. Mhm. yoo xam ne vraiment yàlla mën na mën nañ leen a ñaanal yàlla. Mhm. ñoo ci ñaanal leen yàlla ñu di ko ñaanal ñoom tamit. parce que ñoom tamit ñu baax la ñu. Mhm. waaw. président Ablaye Wade ñëw ci euh, euh, boppu Sénégal def ko moom itam ministre des sports euh, ci boobu ndombo tànk lan la ñu mun a téye si si liggéeyu Vava. bëri na bëri na parce que jàppale na ci ay fédération yu bëri yoo xam ne vraiment euh, am na ñu soxla woon amuñu ko. waaw parce que euh, particularité moo nekkoon moom discipline yëpp la bëggoon ndax da ngay gis ñu ne kii moom football la gën a bëgg wala kii basket la gën a jox bopp mais moom euh, aussi bien bu mu nekkee ministre que bu mu nekkee si si si si si mbiru boppam dafa mos a bëgg et tous les toutes les disciplines en fait sportive loolu lu jar a. dans l'âme moom la woon. waaw lépp la bëggoon ci sport. ah moom def na karaté. Mm-hmm. comme que moom def na karaté. je ne me rappelle pas xaw ma ceinture marron la woon wala ceinture noire. d'accord mais daal def na karaté. cheikhu maître cheikhu un cheikh Oumar Tall. Mm-hmm. moom la woon moog danga lum. d'accord moog danga ñoo def formation bi seen euh, karaté ak kaw. Mm-hmm. alors euh, dugg na ci ay yu bëree bëri yoo xam ne vraiment pratiqué na ko. daf ci amul génn ci kii rek ba li ñu xam ne dafa mais pratiqué na ko. pratiqué na discipline yu bëri. na xam ne vraiment amoon na cawarte pour continuer ci yooyu. Mhm. Ah, li ñuy wax sportif daal daal moom. Mhm. te bu mu nekkee ministre itam wane na ni sport yëpp la bëgg. yëpp fépp lay dem lépp lay dem. Mm. waaw lu xewle lu sport lu mu xewle rek mu taxaw. lan la liggéey particulièrement bi mu nekkee ministre. bëri na nag. waaw xam nga tamit ay. Euh, ay euh, euh, continuité la woon rek. Hmm. alors mais nag def na ci fës yoo xam ne nii nit ñi xam ne euh, def na ci deux mille cinq ba deux mille sept pendant deux ans. Hmm. yoo xam ne ne vraiment am na liggéey yoo xam ne am solo. Hmm. def ak yenn fédération yi. yenn fédération yi nag mën nañu ko xamal ñoom mën nañu ci wax yoo xam ne nii. man suñu ma ko ak moom mais ñoom seq nañu ko ak moom. dëgg waaw les autres fédérations. Mhm. alors si si si. xanaa a il a da ngay jàpp rek ne il a servi Sénégal. dans tous les secteurs d' activité. Mhm. moom lu wér la loolu la mën a firndeel. Mhm. lu amoon intelligence la. liggéeykat la woon. lépp ku sérieux la bokk na ci li nga xamante ay idées yoo xam ne. idées novatrices yoo xam ne vraiment daf ko daan génne. waaw. dañ mhm. daan def conférence de presse pour wax si ay problème yoo xam ni nemmeeku na ko si si wàllu sport wala ci réew mi bu paree dem toogaat loolu nekk aussi loo xam ne lu raar la parce que defu ko woon parce que dafa bëgg visibilité defu ko woon parce que euh, euh, politiquement dafa doon yëngatu mais dafa doon wax li muy wax après dem toog ci ruqam loolu waaw am lu muy wane ci moom lu mu gëm mm. réew mi da ñoroon waaw du ko wax lu mu gëmee woon rek waaw daf ko gëmoon mu mu ñor ko mu génn waaw parce que dafa leen ci réew mi laa bokk ma xalaat naa ko partagé ak nit ñi ñu xelal ma wala ma xel ma ami sama xel wala mu xelal ma bokk na ci nag loo xam ne lii vraiment moo la daan euh, toogee alors euh, fréquenté nga ko ba ni euh, yéen a ngi doon nekk euh, ban gis-gis la amoon ci tolluwaayu sport Sénégal tey ba ñu dem ba jël Coupe d'Afrique des Nations certainement mbégte la woon ci moom mais ban vision la ci amoon ak fi ñu toll tey moom ban ban jàngat la ci amoon parce que géej nañu ko dégg quand même conférence de presse yi mu daan def géejoon na am tuuti. njortu woon njortu na ko parce que xamoon na ne Sénégal amoon na ay hmm. xale yoo xam ne yi Eh, am na fu ñu mën a yóbbu réew mi hmm. jàppoon na loolu te xamoon na koy tamit parce que aussi bu mujj bi tamit daanu waxtaan ak ñun ak moom hmm. eh, depuis des années xam nañu vraiment bi ñoom eh, équipe bi ak ak ñoom Sadio xamoon na ne équipe la amélioration bi def rek ak jàppandi ñu hmm. mën a dem ci seen woon am ay résultats ñoo dem ba nga dina résultat wu coupe d'Afrique mais dañ njort ci yoon na dina wax résultat yu baax mhm. loolu tamit bokk na ci xalaatam bokk na ci lim daan waxtaanee ak mhm. ci démb ci yëpp dañ waxtaan ci affaire bi waaw su ko mën nga xam ne daan na gën a forcé ci affaire boobu bu ne ma gisee mhm. mu ne ma non non ak lii waxtaan bokk na ci bëri xam ne ci le sport sportif euh, euh, ci échanger moom euh, il était ouvert à tout le monde c'était pas seulement moi mais il était ouvert à tout le monde. Mm-hmm. parce que ñu toog ñu nekk ci waxtaanu sport bu Sénégal. Mm-hmm. alors li mujjee ci dundam loo ci jàpp li ngeen mujjee jëflante. wax lu baax rek. Mm-hmm. dem ci dem seeti nit ñi. Euh, ci ay xew. waaw topp ko njabootam topp ko ay xaritam ak am jàmm loolu mm-hmm. rek moom lay nekke woon bu dëj amee dana dem bu xew amee boo xam ne bi war na ko mën a mu yegg ko jaxasoo woon na daal ak nit ñi bu wër bu mm. wër bu wër waaw nit ñi ak bokkam ak xaritam li may li may gën a kii benn benn kii laa lay wax mm-hmm. euh, mille neuf cent quatre vingt dix mm-hmm. nga décidé ne damay yóbbu sama xarit yëpp màkk. donc hmm. yéen ci ñoom rek la boole seen jabar. de def na ko. waaw loolu. loolu kay doy naa ci seede. 1997. mu yóbbu xaritam yëpp màkk ak seen jabar. ak seeni i. macha allah. waaw doy naa ci seede colonel Mars Diané. mooy hmm, hmm. nga xam ne moo. parce que bu ñu ko le le trésorier boobu nga doon jël taay seen seen loolu de ku baax rek a ko mën. waaw ah, yooyu nag bokk na ci nga xam ne ci ay ay qualité am mhm. euh, yoo xam ne vraiment daf ko topp. waaw bu ñu ko dox ba. yàlla may ko yàlla yàlla jël bakkanam. te da daan def te du ko wane. dëgg lu wër waaw lu wër sax. lépp ci sutura. waaw sutura loolu bokk na ci yoo xam ne ñu vraiment euh, mais mën nañ ci wax wax ne li yoo xam ne ñu wax ko la Bougane Diagne tamit mën nañ ci wax lu kenn mënul wax. Mhm. parce que na ko te daan na dafa jëflante ak moom ci ay doomu aadama. Mhm. waaw yooyu yu bëri na yoo xam ne euh, moom dafa daan def ak. Euh, daal waa district nag ñaar nit rek jeex na ñooñu ñaar rek ñoo xam ne ñu te it yàlla baaxal na ñu ñoo xam ne ñu am nañu euh, am amuñu bu ñu koy waxee ba lan biir euh, dañu amoon. Euh, bàmmeelu biir. ba dañu amoon bàmmeelu biir. Mm-hmm. waaw jaral ñu wax mm-hmm. xamal seen diggante moom ak moom ak ak ñeneen ñeneen ñi. Mm-hmm. waaw ñu mu leen sant rek ñu ko da nga ko def te na mu waree te kenn du ko hmm. te kenn du waaw jàppale leen fu nekk nekk rek waaw diggante Kaolack Ndakaaru hmm. loolu moom yàlla na ko yàlla fay loola yëpp yàlla mi am fay yàlla na ko yàlla fay jëf yoo rafet yooyu yëpp yàlla xare ko àjjana yàlla teg loxo ci njaboot gi mu fi bàyyi waaw yeesal yërmande ak leer ak xéewal ci moom amoon nañu mbégte lool euh, sëñ bi Babacar Noël Ndoye dalal ci waxtaan wi ngir euh, sàkku ay seede ci El Hadji Daouda Faye Vava wax nga ñu xëy na ci moom loo xam ne ñu bari xamuñu ko woon bokk naa ci tey découvrir benn facette ci moom euh, vraiment mu ñu koy gën a bëggloo Sénégal moom bëri na ay nit ñu baax comme ni ñu koy waxee waaye malheureusement balaa ñu leen di xam rek ñu ñu ñu ñu làqu ñu <laughs> soriñu donc euh, noonu daal lay doxee waaye sant yàlla ñu ngi lay mhm. gërëm en tout cas bu baax a baax yaa ngi ci gàmmu gi jamono yi ñuy wax ak yow di def enregistrement bi ñu lay ñaanal aussi gàmmu jàmm yàlla mhm. nangul ñëpp te ñaan yëpp aussi euh, yàlla nangu ko euh, rawatina ak ñaan yi ngeen koy ñaanal El Hadj Daouda Faye Baba jërëjëf jërëjëf Ndoye alors mbokk yi dañuy des ba tey ci euh, seede yi xam ngeen ni léegi ñu doon wax ak euh, Babacar Mouye Ndoye nekkoon euh, àndandoowu El Hadji daw Faye Vava sportif mais aussi mu nekkoon un homme politique nekk parti démocratique sénégalais kenn nag mu fa nekk ndooloon di monsieur le ministre Serigne Mbacké Ndiaye jox kàddu ci seede yi monsieur le ministre yaa ngi ci gàmmu gi jamono ji ñu koy di la ziar di ñaan yàlla nangul ñëpp amin amin amin ci daaw dafay vava loo ñu ci mën a wax waaw El Hadji Daouda Faye Vava euh, damay laajte sax est-ce que homme politique la hmm. waaw la parce que man ci suma jëmmi bopp bi ma koy xam mhm. politique ma politiqueul ma nekk xale suma mag bu ma bokkal benn bàyyi ñi am ak moom génération Kaolack xam nañu li may wax mhm. bu tudd Njaay Falam lañ ko daan woowee Babacar la tudd mhm. mais Njaay Falam lañ ko daan woowee donc ba ma koy xam politigul politiguma mhm. muy benn li tax may laaj est-ce que c'est un homme politique dina am leneen lu mu ci dolli mhm. ma sant yàlla nag parce que fi nga may woowe nii maa ngi xombal ndax euh, fi lay passé ci kër sama sëriñ sëriñ Mbàkke Madina yàlla dogal ñu xëy wàcc ay kaamif macha allah. def ay bernde ñaanal mbokk yi jiitu te ñooñu ñuy ñaanal ma boole woon ca tey vava ñu ñaanalaale ko ci niñ may ñaanal suma ay waajur ndax lu ñu séqoon mhm. yàlla ko yàlla nangu fi may woowee ñu ngi ci jàng yeeg yeneen ak yeneen di préparer bernde yi ci bu guddi mhm. montre bii ma takk mhm. di montre Aldo marque Aldo dama toog café de Rome euh, mu ñëw fekk ma fa dafa dugg gis ne ah monsieur le ministre tu ma ni quoi mu daw génnaat dellu si indi benn boîte ni ma pendant longtemps maa ngi denc boîte bi pour dencal la ko cadeau. jox ma ko moonte boobu laa takk ni fi may waxe yow. kon ko ci otoom pour saa yu dajeeg yow rek jox la. voilà hmm. donc vraiment am na loo nga xam seqoon nañu ko. Hmm. pourquoi ma ni Daouda est-ce que politique la woon euh, li ñu ko gën a xamee hmm. mooy ci wàllu social maanaam jàppale doomu aadama li ñu ko gën a xamee mooy ci wàllu wutal nit am xëy ndax ku nekk xam na ni am na benn usine bu ma doon yëngatu ci wàllu jën ay jamono ba usine ma nekkoon ci jafe-jafe. Africamer. mu am voilà dama bañ a tudd tur bi ndax comme yéen da ngeen a gaaw ci affaire <laughs> donc mu mu am taxawaay bu mu ci taxaw. taxawu ci Sénégalais yu bëree bare bëri. Mm. ci wàllu esport mm. ñu bëri foofu lañ ko gën a ràññee. Mm. mu am fa taxawaay bu am solo. nga gis milieu sport li muy doy waar lépp musuma dégg ñu àtte ko ak nit. Mhm. bu ñu dafa génn àdduna tax may wax li may wax ndax mhm. réew mi loo fiy wax. li ngay wax lii rajo yi ci léegi télévision yi fa ma xam laay wax mhm. tey it loo wax nit mën na ko dëggal mbaamu mu dindi ko. dëgg la kon noonu ñu ko ràññee ci wàllu politique ci wàllu sport. ràññee ko ci wàllu social ràññee ko ci wàllu liggéey ràññee ko ci wàllu jàppale doomu aadama yi. ràññee wuñ ko noonu ci politique loolu tax ma ne est-ce que bu gisee la woon bi mu nekkee ci politique bi wax dëgg yàlla ku nekk sedd na ni la mu ci la ko ci waroon daf ko def. Mhm. ba am na benn bis ma toog di waxtaan ak moom mu ni ma tu sais Cheikh bu ñu mësoon wéet. Mhm. Cheikh la may woowee. Mhm. bu ñu nekkee ci mbooloo monsieur le ministre lay wax. ñu wéet mu ni ma Cheikh man ka mu ni ma je souhaite que le président Wade def le ministre de sports. ma ne ko ah bon mais lu tax. mu ni ma jamono bi ma demee ba xam dëgg dëgg dëgg ministère de sport lan la laaj. ak lu ñu ci war a def jamono boobu lañ ma fa jëlee hmm. te jàpp naa ne loola ma fa dajale ci expérience war naa la ko mën a sotti réew mi jariñoo ko donc amoon nañu ay rapport yu sori mais li tax toujours may posé wu question bi hmm. mooy dafa jëloon intérêt réew mi intérêt askan wi teg ko ci kaw leneen lu mënti doon hmm. loolu moom laa ko xamal générosité yéen jàpp njàmburam parce que réew mi li muy jaxasoo lépp mosoo dégg nit dar gémmiñam ne li na bu wax. waaw loolu ko nekk mën na ko seede. Mhm. donc maante lañ ko xam man moom laa ko ma ne pourtant noppiwul woon ci réew mi it daan na wax. daan na wax mais saa bu musaan wax njariñ lay doon moo tax ma ni mosoo dégg mu wax nit dar gémmiñam. Mhm. te loolu dafa am solo. Mhm. parce que wax dafa jafe. tey maa ngi ubbi sama kàddu maa ngi génne kàddu muy dugg ci jaar ci sa antenne. di dem ci àddina yëpp. te wax balu fetal la bu xas ni teel dem. mënoo ko mënoo ko rattrapé. Mhm. kon bu la yàlla suturaale nga dudd ba romb juróom-ñaar fukki at. Mhm. am foo jaar tàmbale nekk instituteur. Mhm. parce que comme li ma la wax sama grand frère mi la wax instituteur la woon comme moom loolu moo leen boole woon. ak ñu mel ni ay professeur Iba Der Thiam. ak ñoom Thiam Gaynde ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. donc yàlla di la suturaal dès le bas âge nga yëngutu ci wàllu àdduna di euh, nekk ci activité politique nekk ci sport nekk ci social ak yeneen te kenn mësula àtte ak nit mhm. doy na sant yàlla mosoo def lu ñaaw mosoo leneen li nag mhm. déedéet kenn mësula ko déggal mhm. li ci des nag yàlla moo xam ñun en tant que doomu aadama ak li ñu gis ak li ñu fekke loolu la ñu mën a seede maanaam doomu aadama nag yàlla rek moo xam kenn xamul moo tax may ñaan yàlla nañu yàlla nëbbal suñuy sikk amiin man du ma nit du ma wax nit ñi nangamang parce que gënu maa jub kenn bay critiquer kenn. Mm-hmm. te koo fi gis mu am nu mu mel. Mm-hmm. ba pare di mbubboo yàlla di mbubboo diine pour gëmloo nit ki leneen yàlla weer la. Mm-hmm. loolu moom jarul muy tudd ay tur te mooy ba euh, ñi ngi mën a citer bari na. li bari na. bari na. kon yàlla ñu yàlla suturaal. amiin nëbbal ñu suñu ay sikk. amiin feeñalal ñu suñuy baax baax. jubali ñu ak suñu mbokk. amiin suturaal ñu ba bañ wax lu ñuy xeebe. moom bi fi jiitu yàlla na ko yàlla xare àjjana jox ay mbokkam xolu muñ mm. leen luñ ko mën a muñe en tout cas loolu daal mën naa ko wax ci ci Vava mm-hmm. ndax wax dëgg yàlla jàpp naa ni li ko ñëpp xamal rek mooy nit ku baax la te baax du weesu baax mm. nit ku baax la waaw baax moom mënuñu cee teg leneen mais ci biir parti démocratique sénégalais naka la fa doon naka la fa nekkee woon ak yéen lan nga jàpp ci euh, euh, camarade de parti bi Daouda Faye Vava waaw xam nga le camarade de parti en fait boo gisee am na yenn détails sax bëgguma ci woon a sori tellement. Hmm. parce que Daouda franchement au niveau du PDS. Hmm. daanaka mun noo wax ne amu fa woon une vie militante bu ñu mun a wax ni kii militant PDS la. Ah bu dëgg dee dëgg. Hmm. Oh, non non non du une vie militante. parce que dafa am ñoo nga xam ne xam nga jiboka. yàlla na ko yaa dee dafa daan wax ni je ne suis pas socialiste par fonction. je suis socialiste par conviction. daaw da bu duggee ci politique fonction moo ko dugal ci politique ci PDS. Hmm. fonction moo ko en vérité c'est ça aussi. Hmm. Abdoulaye Wade ko am fu ko teg dénk ko responsabilité def ko maire def ko ministre. mais boo seetloo ba mu génnee ci activité yooyu bi xam ne euh, c'est des actions gouvernementales pratiquement déggatoo ko mu yëngatu ci activité politique. circonstance rek la woon kon. circonstance la woon cest à que nit ki am na loo nga xam ne bu la dénkee dara. nga war ko delloo njukkal. Hmm. léeg di nga gis par exemple ku dul politique ñu jël la def la ministre wala def la directeur général wala nangam ak nangam. Hmm. par reconnaissance. maanaam dellu njukkal ki la ko def. Hmm. nga wëlbati ko di ko jàppale au plan politique. Hmm. mais Vavard n'a jamais été un militant. comme ni ñu koy tuddee nii militant de base. Euh, hmm. euh, dëkk ci ay section ay kii di yéeg ba egg non franchement il ne l'a jamais été. d'accord d'accord voilà. moom ak président Ablaye kon lan moo indi seen relation. ah loolu nag loolu nag wax dëgg yàlla bariwuma ci xam-xam. lenn daal xam naa ko. Hmm. Eh, am na nu Ablaye Wade daan doxalee. mooy dëkk bu ne. daan na laaj muy defal ko fiche ni ko dëkk sàngam de diw nii la mel diw nii la mel diw nii boo ko dénkoon nag nga mën nga mën na lii ak lii a ràññee ko ak hmm, fu mënti bokk nag boo boo fàttali ko Ablaye de bu ñu jëlee pouvoir bi hmm. ñu mel ne ay doyen Thierno Birahim Ndaw ñoom hmm. la jëkk a jëli waaw moom la jëkk a jëli dugal leen ci liste def leen ñi ay député ñi ay ministre ñi leneen ak leneen ak leneen parce que noonu la daan fonctionner. Abdoulaye daf lay xam ni ay pi nag du lu bees. Hmm. maa ngi fàttaliku au premier congrès. Hmm. du PDS à Kaolack en 1976. Hmm. xam nga loolu yàgg na. waaw lool muy wax ni su ma gañe woon mi du ma gouverner seul. fu compétence nekk dama koy jëli. dal di citer ni damay citer comme exemple. ku mel ni Djibril Sène bu Bambey ki nu kan ingénieur agronome. jàpp nit ku mel noonu. Mm-hmm. jàpp naa ne su ma yoroon réew mi bokk na ci nga xam ne war nañ ma mën a jàpp jàppale. Mm-hmm. donc Wade dafa am benn gis-gis bu yaatu. pour dëggal loolu nga wax docteur Cheikh Dieng nettali na ma itam ne digganteem ak président Wade noonu la jaare voilà exactement. Mm-hmm. noonu noonu la doon doxale moo tax d'ailleurs dafa la daan wax ni. bu ma déggee nit di wax ay transhumance ree daf may jàpp c'est que les gens n'ont rien compris. mës naa toog ak moom audience ak Aïda Ndiongo. ba ay da njóogu génn wadd sëgg ba mu yàgg mu ni ma je suis vraiment désolé man ko ah président lu xew mu ma regarde moi cette fille là elle a fait au moins dix ans avec moi lu nekk daj na ko ci man di def ci réew mi lu ñëpp mën a seede malgré tout ça malgré dix ans de compagnonnage mhm. ay nit di ko taxé de transhumant mais bu leen leen déglu donc mm-hmm. Wade avait cette vision mm-hmm. donc loolu ko boole ak docteur Cheikh Dieng que je salue au passage xam na mm-hmm. ko baax on a travaillé ensemble à la présidence jàpp naa ni moo ko boolee ak Vava ak ñeneen ak ñeneen ñu mel noonu donc moom fu comme xam nga Wade mm. dafa bëgg lu baax fu compétence nekk da koy jëli daf koy jëli mais am na def nañ benn voyage mm. je pense c'était à au Tchad ou à Addis Abeba je crois mm. Addis la woon yaakaar naa ni am benn nit bu fa ñëw jigéen la. Mhm. di waxtaan moom ci ay soxla boppam. Mhm. mun ko mais qu'est-ce que tu fais mun ko nangoo naa mun ko dugal ci avion ma yóbbu la ñëw def ko ministre. Mhm. voilà koo mi ngi fi waaw loolu mos nañ ma koo nettali compétence mu nekk daf lay jël boole la ci yëf yi. parce que il considère que réew mi réewu ñëpp la. voilà. alors euh, El Hadj Daouda Faye Vava euh, euh, nit ki ndax wax nga ñu ne du du du parti démocratique sénégalais moo leen boole yàgg ngeen jëflante. des fois ñu doon dafa tàng des ñu doon wax ne bon xëy na dafa am euh, xadar euh, lan nga jàpp ci jëmm ji nit ki loo ci mën a seede. xol bu rafet xam nga lii xol bu rafet. Mhm. mooy nga ñëw nit mën ngeen a jàppante tey xët xëti moo xam yaa ko tooj moo xam moo la tooj. foo ko fekk ak ñu akolaat ko boo yore taraanga nga defal ko ko. te fekk waxante ngeen xëy na sànq ba na ma ne fekk xëy na waxante ngeen sànq ba mu tàng. voilà mu ngoog xam nga dafa am lu olof yi di lépp nañ ma baal ci ni ma koy waxee. Mm-hmm. olof dañ di wax ni ku dul mer maam la. Mm. bàyyi koo nga boo meree doo bàyyi xaj la. waaw te comme bëgguñu doon li bëgguñu doon leneen. Mm-hmm. ay doomu aadama ak suñu insuffisance suñu matandi na ma ko yàlla baal ni ma ko war wax. Mm-hmm. mais nit day mer mais boo meree da nga war a giif. kon daan na mer waaye bu ca paree pare na ca. mais absolument bu waxee yow la muy wax xam nga un sportif moo mel noonu. waaw. Ablaye Matar Diop mën naa su ma léegi xeex ak yow. Hmm? boo ko rombaatee nga ne kii doon moom. déedéet. c' est ça le sportif. Hmm. dafa am lu muy def ci doomu aadama. dafay tàggat nit. day am njeexital ci sa. voilà ci sa dundin ci sa doxalin. Hmm. parce que boo bu amee mouvement bu am démocratie dëgg dëgg dëgg. c' est sportif. waaw kon mënoo fa jaar nekk président d'ASC nekk président de club de première et de deuxième division. Mhm. diriger Sénégal le comité euh, Sénégal 92. Mhm. diriger ko ba. compétition bi jeex nga dugal desal xaalis boo joxee boo delloo. Babacar Noël Ndoye léegi la ko seede léegi la ko seede. bu kenn musul def waaw. kenn musu ko def. Mhm. nga def ko ni état bi dama leen di économiser seen xaalis. sakkanalal leen. ñu ne ko ñu koy defee mu ni leen ñii di ñëw di napp si jën ci réew mi mhm. nañu fay am lu ñu fay ñu defar ñu liggéey ci def ci li ñu li ñu kaaf sant mu def ko xaalis ba des mu leen am leen lee fi des loolu wax dëgg yàlla doy lu ak jub moo tax nit di ko def mhm. kon vraiment c'est des qualités exceptionnelles yoo nga xam ni mhm. du ni dañu bàyyi ba mu dee ñu di ko soog di wax mais ba mu dund dañ ko doon séq ak moom mu wóor ñu également ñu di ko seede alors ministère des sports ba mu ko yoree yaa ngi junj sànq nee na expérience bi mu fa dajale yépp bëggoon la koo jox amoon yéene lool itam ngir ñu dénk la loola bu ko defee xëy na nga nga wéyal yéeneem mais la mu fa jot def looñu ci mën a wax tey. xam nga ministère des sports. Mhm. vraiment dafa ñëw ci jamono bu bu metti pour le sport sénégalais. Mhm. damay wax ni li wolof Njaay sax koy wax. Mhm. ni ku muus ren dañ laa naxoon daaw. leer na Sénégal dañu dem. Caire engouement bu kenn mësul gis. ñu mhm. dem premier match ñu dóor Égypte. Mhm. but de Corneillum. Mhm. ñëpp de Sénégal ay jël coupe d'Afrique. ñu éliminer ñu jëlee fa déception. ñu dem Sénégal quatre-vingt-dix Alger. gagné wuñu mais du ma ko tuddee échec parce que demi-finale lañ ñu éliminé. Algérie mi organisé moo ñu dóor jël bi. ñu ni kon Sénégal quatre-vingt-douze ñun ñoo koy organisé. ñu am échec. bi ñu la éliminer tous les techniciens daje ñu ni qu'est-ce qu'il faut faire hmm. ñu ne nañu dellu à la base hmm. loolu moo jur tey centre de formation yii nga gis hmm, ak école de formation institut ba tey les joueurs sénégalais nekk les meilleurs dans les plus grands clubs du monde kon résultat bi ñu am tey c'est depuis quatre-vingt-six et même avant saa bu ma waxee may sargal les entraîneurs sénégalais. Mhm. les initiateurs de football. Mhm. xam ne da ngay xëy dimanche matin wala samedi matin romb leen ci ay terrain vague. Mhm. ñu ñaari bal wala ñett entraîné ay xale. kenn fekku leen ci. loolu moo ñu jox résultat bi tey ci jamono boobu nag nga xam ne le football sénégalais da doon wut da doon chercher boppam. da doon xool ay marque da doon xool naka la mën a def. pour taxawal ay structure jamono boobu la daaw dafay amul chance Matar Ba mhm. Matar Ba que je salue au passage mhm. l'excellent travail bi mu def au niveau du ministère des sports mhm. boole ñëpp parce que dama koy yàgg wax ni Matar ëpp fi xam-xam ëpp fi dara waaye am na lu mu def lu ñeneen ñi deful mooy rafetal na doxalinam diggante na nit ñi soigné na image am soigné na communication ba kenn du ko mere du mere kenn te dina def li mu war a def donc chance boobu Matar am Vavant amu ko. Hmm. donc Vavant il a fait dix sept ou dix huit mois la def ko niveau de de la fédération. Hmm. de du ministère ministère. yàggul woon pour mu def fa dara. Hmm. mais moment boobu aussi parce que ak moment bouillonnement politique. jàppal bàyyi yéegal wàccal àqal ci kii fii la far kii fële la far loolu moo ko yóbbaale maanaam xam nga ñaari ñay bu ñuy xeex. cuuj dafay sori. moo ay ñaari ñay di xeex. moom mii cuut ñu felaale ko te yoonu nekku ci woon. <laughs> dëgg la ma dugg ci danaay mais looloo ko jëlee au ministère. donc mm-hmm. yàgg fa véritablement. Mm-hmm. mais gëm naa ne bu fa yàggoon. avec son sens élevé de l'organisation et de la méthode. Mm-hmm. résultat yii ñu am ni tey mënoon nañ ko teel a am. bon malheureusement loolu la yàlla dogal mais encore une fois yi moo ñu may ay résultats moo ñu may réussite aujourd'hui. moo ñu may réussite. alors xëy na ci ci loo xam ci moom lu ñu xamul euh, nga bëgg ñëpp jàpp ko ci El Hadj Daouda Faye Vava lu ah xëy na li ma ci xam ñëpp xam nañ ko ñeneen xam nañ ci lu mu xamul. Hmm. ndax séq nañ ñeneen peut lu mu séqul ak man mais man daal li ma jàpp ci moom. Hmm. mooy générosité xam nga générosité bu ñu ko waxee. Hmm. du koppar booy génne di joxe ci poos. mais xam nga par exemple li ma wax ni ma su ma sañoon war na def la ministère des sports. waaw baax a ko loolu générosité magatu ko. dëgg la. loolu mooy générosité dëgg-dëgg. Mm-hmm. am nit lu ne. yéene voilà yéene boobu mu am ci doomu aadama yi. Mm-hmm. am ko ci réew mi te yamalewu ko ci wax parce que daf ko jëf. Mm. nekkul woon un fonctionnaire boo nga xam ne état daf koy jox ñu naan détourné na fii def na fii dugg na fii non. Mm-hmm. il a créé ses propres affaires. dafa liggéey def ko ni ko war def ba ñëpp xaj. Euh, Babacar Noël Ndoye nee na ba muy nekk instituteur dafa doon dem di jëndi ay jën ak ay. voilà jaay def commerce boppam. exact très bien xam nga loolu nag. boo nekkee ci réew. Mhm. da ngay fexe doon modèle. model nag du lu ñuy wax. Mhm. lu ñuy jëf la. Mhm. moom ca la mu nekkoon doonoon na ci modèle. parce que nag comme ni ko tuddee wax nga ko dinaa ko mën naa ko tuddee léegi. muy Africamer. waaw tax na ba Sénégalais yu bëri ñemee soobu ci secteur boobu. ba tey muy créer ay milliers et des milliers d'emplois au Sénégal. kon kooku yaakaar naa ne am na lu mu defal réewam. yàlla na ko yàlla fay muy yiw fa mu nekk. amiin amiin. jërëjëf sëriñ Mbacke Ndiaye monsieur le ministre ñu bàyyi la yaa ngi ci gàmmu gi di ñaan yàlla waaw ngi ci gàmmu gi maa ngi ci gàmmu gi waaw jërëjëf ci Sénégal ñëpp allahumma amin mbokk yi fi la ñu yem ak yéen ci seede yi ñeel ndem si yàlla élage yi daw dafay euh, Vava xëy na gàmmu gi sax moo waral mënuñu jokkoo ak ñu bari wante daal euh, Babacar euh, Noël Ndoye di àndandoowam ak monsieur le ministre sëriñ Mbacke Ndiaye foog naa ne li ñu fi wax dal na xel te itam ci ay seede lu doy sëkk la ngir xam kan mooy Elhadji Daouda Faye Vava dellu di ko jaal njabootu boppam di ko jaal aussi bépp doomu Sénégal rawatina ak sportif yi di ñaan yàlla mu dolli yërmande ci moom yërëm ko jéggal ko te xaare ko aljana ñu jeexal kon ak portrait di nataal bi nga xam ne defoon nañ ko euh, keroog ngir dellusiwaat ci jaar-jaaram bi ko fi yàlla jëlee kon ñu dig leen daje beneen dimanche incha allah waxtaane leneen ak keneen gërëm jaawo jàll mi ne woon ci jàppandal gi yeesal ngërëm ci yéen euh, Fatou Thiam Ngom moo fare woon ci kaddu gi euh, ñu yendoog jàmm mbokk yi ba dimanche incha allah Vava footballeur bu mag la woon doon sax indi mbégte si Vava mi mu tuddee boppam mu nekkoon ku xereñ lool ci wàllu football jamonoy Pelé ca équipe bu Brésil jiite woon na fi Africa Mer Scat Urbam ak comité d'organisation coup d'Afrique des Nations ñu tuddee woon ko Sénégal 92 Vava bokk na ci ñi sos Guédiawaye football club bokkoon na itam ci bureau bu AS Les Jaraaf de Dakar mi ngi dugg ci gouvernement jamonoy président Abdoulaye ba ñu ko tabbee jëwriñ ju yore wàllu tàggat yaram lu ko amaloon na lamb ju rëy ci stade Léopold Sédar Senghor diggante Mohamed Ndao Tyson ak Manga 2 roi des arènes ci yooyu jamono mu joxoon leen ku nekk cachet bu toll ci fanweeri million ci xaalisu CFA mu doon ab guleet euh, ci làmbu Sénégal doomu Kaolack bi nekkoon na maire boobale gox député ci assemblée nationale ak vice-président bu Sénat jiite woon na fi fédération sénégalaise bu football vava ñi ko xam ñëpp seede nañu ne xeetu tàggat yaram yépp la bëggoon te di taxaw si ñu dund yegg ci juróom-ñaar fukki ak juróom-ñett nag teewul woon Vava lu baax rek la bëggoon si liggéey wante daf ci daan wone fulla gu sëkk ba am sax ñu doon jàpp ne dafa tàng wante nag boobule caractère mu boole woon kaak yeneen moo ko may lépp lu mu sumboon mu am ci ndam waral turam tey ci wàllu tàggat yaram kenn mënta wax te doo ko ci tudd ñu mën cee joxoñ liggéey bu rafet te mucc ayib bi mu def ci commité de gestion bi mujjee doon fédération sénégalaise de football daaw dafay Vava diplomate la itam bind ndax ci atum 2013 daal nay xalaat ci naka la ñuy def ba saafara fitna yi am ci Afrique te jaaree ko ci jaloog di waxtaan ci livre lee mu daal di ciy fësal ay yoon yu ñu mën a aw ba waxtaan bu ko defee réeroo yi am ci Afrique ci diggante yenn njiit yi ñu daal di koy mën a saafara